ànd bi ak télévision Futur Média dalee na jàmm ci xibaaru marax mi ponk ya ca gën a fës coow li na kur ak lubar koppar yi ci administration yu Sénégal bokk na ci post Lonase Crédit Mutuel Trésor laaj samp na lu waral euh, ñuy lubar koppar saa ne ñi fare ci nguur gi ak ñi fare ci kujje gi ànd nañu di ko euh, naqarlu avocat yu groupe euh, Locafrique nag ñi ngi doon janoo ak taskatu xabaar yi di xamle rek nii nag Sarr moom lañ ca seetlu mooy yorin bi dëppoo dëppoowul ak yoon nee ñu nag daañu dem fa mbaxane doone benn ndax am na koppar yoo xamante ne nag euh, faw nag euh, ñu daal di koy euh, biral ndax koppar yooyu nag kon koppar yi Locafrique la recouvrement bi toll na booy xool ci téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ci suñu koppar mbirum ñaari tur yi ci Sénégal nag bëgg nañu daal lépp loo xamante ni wàllu daan la bu ca waree am nag nañu ko gën a taral ndax loolee duñu ko bàyyi mu jàll ci réew mi collectif ànd sàmm ñoom nag ñooy sàkk lu ni ñu ne def nañu nag ab pétition pétition ba ñu ca noppee nag ñu ne ab projet de loi itamit euh, tëral nañu ko ca wàll woowee am na sax ab député yu ñu ko euh, jébbal ba député yooyu nag war koo tegit ci taabalu njiital assemblée euh, nationale sondage bu média métri nag dafa wane ni fii nag euh, ci euh, Sénégal télé yi ñuy gën di euh, seetaan bi ci jiitu télévision Futurs Médias la sondage la mu teg ci nag kon rek télé bi di Sen TV waaye leneen la ñu seetlu tamit ci wàllu rajo yi tamit jàpp leen ni daanaka boo jëlee askanuk Ndakaaru genn wàll gi yëpp rajo yii la ñuy déglu muy rajo Futurs média ak Zik FM daanu ci ànd ak Aminata Mbari Sow mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu fam fàcc xibaar yi. dalee jàmm ci xibaaru marax mi nees ko waxee woon ci euh, ponk yi nag muy luubal koppar bi ñu nemmeeku euh, ci yenn ci bànqaas yi euh, nguur gi administration yi sax la ñuy wax bokk na ci post Lonase crédit mutuel ba ci trésor bari na lool lu ñu fi wax luubal koppar dafa gën a tar nag jamono ji mu bari lool ñu ko naqarlu bokk na ci ñi fare ci nguur gi ba ci ñi fare ci kujjeek politique gi Cheikh Diop la ñu ci àndal mu ànd ci ak Amadou Ba ay scandale lubal wàllu wuruj yoo xamante ni daal nañ koy nemmeeku ci haute administration sénégalaise mu nekk loo xamante ni nag bëri na ci askan wi ñoo xamante ni nag ñu ngi koy ñaalu. li ci gën a choquant moo di ne euh, luubal yooyu dafa bëri fi mu fi mu génn. ñuy tudd ay société génn na fi génn na fi génn na fi day choqué ku nekk. tey jii bu ma amee rek ci kan lay metti mooy askan wi nga xam ñoo dajale seen dërëm ak seen ñaar dërëm dugal ko foofu noonu ndax xaalis boobu noonu mu day bokk ci junni ak ñaar téeméer juróom-ñeent fukk juróom-ñetti junni milliards yi nga xamante ni moo war a doxal. réew mi. aw république scandale noonee la gisee moom parlementaire wi li membre bu opposition Serigne Abdou Bara Dolly di jàpp nekk lépp lu ñeel wàllu organe de contrôle yi nag ci jamonoy Macky Sall ñoo amalul seen ab liggéey ni mu waree. muy système boo xamante ni dafay défendre. corruption ak li nga xam ay détournement système boobu liggéeyam des na. mais tant que lii nga xamante ni moom la Macky Sall war a def ci ay ñoñam defu ko si lu mel ni day ndax bari nañu lekk xaalisu réew mi. ci ñu mel noonu te du mujj fenn bu ñu àndee Macky Sall. boof alalug bokk moomeel gi bëri na ci ñoo xamante ni nag ñu ngi doxalee lu ni mel. bu ñu sukkandikoo ci kile nga xam ne jot nañ jokkoo ak moom la mu xam xamle moom moo di lépp lu ñeel wàllu taxawaay bi war nañ koo xoolaat. sunu société bi ñun sénégalais yi yëf yi mu ngi ci biir kër yi mu ngi ci mbedd mi. donc mënul bañ a nekk ci direction général yi. mu ngi aussi ci opposition bi mu ngi fépp. trésor poste crédit mutuel LONASE ak yeneen i barab yoo xamante ni nag laale nañ eh, ci mbir mi lépp lu soxal wàllu scandale wile te kuñ ci tudd wu nekk mu ñeel wàllu boîte ay milliards et mooy doon la nga xam ne moom lañ fa wuruj Euh, Cheikh Diop euh, post boobee sax ñu tudd ci wàllug euh, luubal nag nee ñu lu dal à la yi ci Sénégal post moo leen ko yóbbee du samay kàddu ki jiitee mbootaay gi ëmb à traité yi ci Sénégal nag bootu mbootaay googu ci IPRES moom moo ko xamle tey nag mbootaay googu mi ngi rafetlu rek tey tàqalikoo gi nga xamante ni am na ci diggante IPRES ak poste ndax nee nañ loolu sax dafay tax nag wax dëgg jafe-jafe yi ñu doon jànkonteel dina mën a jeex Aminata Goudia bi Abdou Karim Beya këram gi nekkee fii ci quartier Ndoup nekkee ci commune bu Fatick la ñu ko fekk moom nag moom muy président groupe de veille et d'alerte bi nga xam ni moom moo ëmb association retraité yi bokkee ci IPRES moom nag nee na jafe yi nga xam ni moom la ñenn ci ay retraité di dund fan yi metti na ko waaye moom Mamadou Diafal nag nee na rafetluwul benn yoon manifestation yi nga xam ni moom la ne nemmeeku ci yenn région yi te retraité yi di ko def. parce que ñun fi ñu toll dépasé nañu toog ci mbedd dépassé nañu di yuuxu parce que su fekkee ne yow am na loola naqari jéemal approché woo ci ñi nga xamee ne ñoo ko i IPRES rafetul moom nag ñi mu jàpp ne ñoom ñoo indi problème bu ni mel moom moo di waa poste ndaxte nee na lu ëpp quatre-vingt mille retraités poste finance moom moo war di leen fay seen ay pension waaye liggéey bi koy defee jaarul yoon. li ëpp ci retraités yi dañ leen ko leen féetale woon ci poste parce que poste dafa xaw a tasaaroo ci Sénégal yëpp waaye constaté nañ ko retraités yi commencé nañ sonn d'ailleurs nañ leen di fayee sax dafa rafetul ñu ngi rang ci naajo yi ñu waaye li gën a métti mooy poste finance su commencé woon di fay su fayee la mu yor jeex day déclaré ne IPRES lam ko jox doyut. moom Mamadou Dia Fall nag di wax retraité yi nga xam ni fi mu ne dañoo mer ñu calmé wu ndaxte situation bi bu yàggul dara rek ñu ko lijjanti ndaxte IPRES buñ sukkandikoo ci moom dagg na contrat bi nga xam ni moom moo doxoon digganteem ak post finance ci lu jëm ci ni ñuy fayee pension retraité yi. léegi nag dafa am lu ko war a remplacer. ñu xalaat ne nañu touché képp koo xam ne yaa ngi doon fayee ko ci post nga sa bopp ci agence wala ci direction générale wala ci association yi parce que dañ lañ la jox ñaari possibilité benn bi nga ne Orange Money laa bëgg ñu ma koy fayee beneen bi nga ne Wave kooku soo ko defee euh, le système commence ba fi may wax ak yow plus de cinquante mille jot nañu ci canal yi ak Orange Money depuis le quinze ans commencé nañu fayee ko. fan yii nag ñenn ci retraités yi dafa mel ni dañu mer ba futtu ndaxte ndaxte ay fan ci ginnaaw nemmeeku woon nañu ñenn ci ñoom doon def ab manifestation fële ca Thiès ngir rek laajte seen ay pension kilifa yi nag moom Mamadou Diafal jàpp ne war nañoo jël ay matuwaay ba problème yu ni mel dootul amati ci réew mi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Aminata euh, euh, Goudiaby euh, avocat yu groupe Locafrique nag ñi ngi doon janoo ak taskatu xabaar yi di ñaawlu rek yorin wu wàcce saar yorin woow ñu jàpp ni yorin bu ñaaw la tamit ba tax na daal ñu gis ni kon ay jafe-jafe yi bari juddu na ca ba tey avocat yooyu di xamle ni daanu dem nag ba fa mbaxane doone benn daal di kalaame ci wàllug koppar yoo xamante ni nii nag jàppees na ni nag teguwul ci yoon koppar koppar yooyu toll na ci euh, téeméer ak juróom-ñaar fukk euh, ci milliards yoo xamante ne nee ñu euh, recouvrement la ci wàllu wàllug Locafrique dinañ ci dellusiwaat ak sunu naataango ba ñu fa teewaloon di Mamadou Fall ci tënk ba tey ki nga xamante ne nag nekkoon na jëwriñ fii ci Sénégal ministre d'État di Samuel Sarr nag moom daal nay rek tekki ndombal tànkam ca Sarr googu nga xamante ne da caa nekkoon nag kon administrateur bu Locafrique moom moomu nag nekkoon kon tekki jaar tam euh, ci euh, conseil ba conseil d'administration bu euh, SAR ndax moom moo nekkoon administrateur bu Locafrique li ko waral nag bokk na ci ñàkk àndam ak capitalisation boobu ñuy wax nag ca SAR tey nag mu ne ànd na ak nguurug Sénégal daal gis-gis bi nga xamante ni am na ko ci loolee ñuy wax booba tey jëm ci wàllu ko capitalisation bu SAR leneen it junjoon nañu ko ci ponk yi muy nag ab projet de loi boo xamante dafa jëm rek boroom ñaari tur yi euh, fii ci euh, Sénégal nag ñu fexe rek ba jëmmal ko bu sottee tamit euh, daan ya doon daan yu diis gann mu nekk ab càkkutéef bu tukkee ci kuréel gi duppee seen bopp ànd samb jikko yi ñoom nag am na ab pétition boo xamante ne def nañu ko ba ñu noppee ci pétition boobu nag la ca juddu niñ ko waxee mooy projet de loi boobee ñu ne nag jël nañu lépp rek jébbal ay député yoo xamante ni liñ ci namm nag mooy ñu teg ko ci taabalu njiital pencum ndawi réew bu Sénégal. activiste bi di euh, Guy Marius euh, Sagna nag euh, moom mi ngi naqarlu affectation bi nga xamante ne nag affecté nañ ko fële ca diwaanuk Kédougou moom agent social boobu nee na ci juróom-ñaari at affecté nañu ko juróom-benn yoon bii nag moom sax nee na tuddeewu ko affectation ndax jotul benn këyit bu nuy firndeel lu ni mel ndax dafa jàpp rek ni daal yi fii daal dafa mel ni xamatul lu nekk ca gannaaw def lu la neex kese la waaye bu loolu weesoo nag faf sax moom nee na nag. dafay jël disponibilité ci fonction publique te gisul dara lu ko ko teree jël ñu teewlu ay kàddoom ci micro Marcel ma Maroun bëgguma nekk jumtuwaay un joujou un jouet entre les mains du président Macky sàll saay bu ko neexee mu garde à vue ma saay bu ko neexee mu emprisonné ma saay bu ko neexee mu may ma liberté provisoire waaye saay bu ko soobee itam mu affecté ma donc affectation déportation bi c'est un instrument entre les mains du président Macky Sall pour me combattre de manière citoyenne pour me combattre de manière politique dama jël dogal ne dootuma ko may damay suspendre sama participation ci fonction publique naa déposé tey sama demande de mise en disponibilité pour une période de trois ans et débat wu ma si ak Macky Sall c'est à prendre mais ce n'est pas à laisser négocier wu ma saraxuwu ma ma nga kon ñu dellusiwaat rek ci li ñu doon wax euh, léegi muy mbirum euh, morom ñaari tur yi fii ci euh, Sénégal ak li ñu ci namm nag muy rek ab projet de loi boo xamante ne nag dafa am ñu ko xalaat bëgg ñu jëmmal ko bu sottee nag daan yi facile tegu ci ndodduk ñooñee na doon daas daan yu diis gann collectif bi di ànd sàmm jikko yi nag ñoo xalaat du ni mel defu pétition noppi ca nag jël lépp jébbal ay ndawi réew mi ñenn ci ndawi réew moomu nag lañu bëgg mooy jël ko teg ko ci table njiital assemblée nationale su ko defee nag ñu mën a wote projet de loi boobu mu jàll Lamine Fall Amadou Ba. kuréel gi ñu duppee ànd sàmm jikko yi te ONG jamb daal di koy taxawal te ji dañ doon jëbal ñenn ci ay député lii di ab proposition de loi ngir gën a taxawal seen xeex lépp lu jëm ci wàllu ngóor jigéen. te kilifa gi réew mi mooy le peuple sénégalais article 3 bi moo ko mi mooy le kilifa googu nag lu mu bëgg ndawam yi mu tànn dañ see war a taxaw képp ku yilif am njaboot rek yaa ngi nekk ci njàqare ni man samay doom tey lan la ñuy dajeel ëllëg. mbiru góor jigéen nag gis nañu ni dafa gën a fës ci réew mi te jàpp nañu sax bokk na ci lu ko waral lëndëm ak ñàkk leer bu constitution bu Sénégal ak itam lii di article bu code de procédure pénale bu ngeen demee ci article 25 alinéa 3 bu constitution bu Sénégal dañuy wax ni tout citoyen est de respecter scrupuleusement la Constitution, les lois et règlements, notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui. Droits d'autrui, ça veut dire quoi Mais on nous parle maintenant de droits d'autrui. Mais qui est autrui Et c'est proclamé dans la Constitution sénégalaise ci référendum bu 2016. Le nouveau code de la presse, Ngor Jigen lañ ci bind mu leer à l'article 18, orientation sexuelle. naam sax jàpp nañu ni lii di proposition de loi boobu ay jaar-jaaram laata muy agsi plénière du yomb wante teewul waa ànd sàmm jikko yi feggoog cek ak ñenn ci député yi ñoom ñu ngi ciy am yaakaar. Euh, ce sera recevable euh, ça ne fait pas de doute am benn incidence financière euh, euh, ensuite bon c'est conforme à la loi kon le bureau de l'Assemblée nationale présidé par Moustapha Niass dana ko examiner incha allah dinañu considérer ne que c'est recevable. après dix jours que le président de la République reçoive le document war nañoo tàmbali liggéey bi maanaam conférence des présidents moo war a réunir déterminer ay dates ah, ay dates pour la commission des lois mooy la commission compétente mën ko examiner ñu fixer également une date pour la plénière plénière bi nag député yëpp ñoo fay teew euh, également euh, plénière bi tamit euh, citoyen bu bëgg a teew tamit mën naa mën naa teew ci plénière collectif bu ànd sàmm jikko yi ñoom dogg nañu ni dinañ xar seen tànk tuwaay ngir xeex lépp lu jëm ci wàllu ngóor jigéen te proposition de loi boobu sax ñenn ci député yi tey jii eggee nañ ko njiitalu président de l' assemblée nationale pour ñu mën a criminaliser lépp lu jëm ci wàllu homosexualité maanaam mbiru góor jigéen. niñ ko waxee woon tamit muy avocat yu Locafrique doon janoo ak taskatu xabaar yi di naqarlu yorin wu bon wacc euh, saar bu loolu weesoo nag ñi ngi xamle ni euh, daanu dem nag ba fa mbaxane doone euh, benn ngir mën a jot koppar yu Locafrique koppar yooyu ñu xayma ko ci téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk ñu teewlu ci maître El Hadj Diouf ci micro Mamadou Fall. jooni jooni ci tàng tàng bi yow Locafrique boo fi bëggee toog da nga indi ñaar fukki milliards ak juróom bi. yow état du Sénégal war nga indi fanweeri milliards ak juróom-benn waaw loolu fu mu fan la jëm c'est que ñii juróom fukki milliards ak juróom-benn am nañ ko ci ci perte ci at bi passé rek bu dee da ngay liggéey di perte juróom fukki ak juróom-benn ci benn at yow war la càmbar seet loolu nu mën a nekkee milliards yooyu fan la jaar mais xam nañ loolu yëpp. càcc wuruj ay njaaxum ay yu kenn xamul ba kenn xamul fu milliards yooyu nuñ ko nuñ ko yore ay bor léegi nag ñu yokk ci def benn commande ñaar téeméeri milliards gré à gré mooy yaa ma neex marché yaa ma neex yow laa koy jox ci conseil d'administration bi ko waroon a approuvé yëgul Locafrique bi nga xam ni actionnaire bu am solo la ci yore lu ëpp fanweer ak ñeent ci société bi yëgul tinul kon direction SAR day xool ay xaritam ne leen bon commandé naa deux cent milliards léegi amul problème bon bu ko defee jox ko ci ay nangamu milliards commission mais affaire yu sàcc la quoi loolu la président aussi war na ko xam donc ñi fi nekk tey ci SAR nekkaluñ fi état bi Sénégal maître El Hadj Diouf bokk ci avocat yu Locafrique euh, ñi nag ba ñu leen jëlee ci barab euh, yi ñu doon liggéeyee barab bi ñu doon liggéey ak léegi mat na juróom-ñetti at ci tey muy rek kon regroupement boobee euh, boole artisan yu automobile yu Sénégal ci ab assemblée générale nag wax nañu li leen naqari mooy jafe-jafe boobu beneen jafe-jafe tamit bokk na ci ñu fexe nee nañ ba yeesalaat chambre de des métiers du de Dakar muy chambre des métiers bi muy maanaam wàllu bureau ba doon ko war a xoolaat daal tëral yu ne ndax gët nañu ko yër ñu teewlu ci Ali Sow moom moo jiite regroupement bu ci micro ndonga ka président de la république moo leen jëlee fi garage pompier nekkoon biñ leen fa jëlee nag defar nañ fa ay appartement jaayee appartement yëpp benn 49 millions indi ñu suufu po boobu maraîchère ñu nekk fii di fi liggéey fii chaque mois ñu ngi fiy fay 411 mille 414 000 ñu dégg nag président de la république fan yi passé wax ci ministre en charge de l'artisanal pour ministre bi actuellement mën a préparer wu ci terrain yi nekk jam Diamniadio pour mën ko joxe ci décembre bi ñuy wax ni président de la république terrain yooyu nga xam ne cinquante hectares yooyu nga xamante ni ñu ngi koy joxe te mu nekk Diamniadio cinquante hectares yooyu tur bi pompier la kon dañ ko destiné woon pour mécaniciens yi nga xam ne ñoo nekk pompier waaye yaakaar nañ ni ñëpp xaj nañ fa. ci fonds Covid bi président dafa génne vingt cinq milliards jox ko artisan yi ci ni ñuy waxee nii ci conseil des ministres ci ministre de l' artisanal bi mu demee temps yee passé ci député yi assemblée ñëpp posé nañ ko question yi laaj ko xaalis bi ñun déggoon nañ nag président ne ministre des finances na génne xaalis bi joxe ko. ñoom nee nañu woon chaque mois dinañ génne cinq milliards mais ci vingt cinq milliards yi ba léegi dix milliards rek lañu génne beneen xaalis bi kenn génnewu ko te artisans yi nag soxla nañ seen xaalis ndax fonds Covid la ñu wax pour ñu mën leen jox seen xaalis ndax chambre de métier bu Dakar ki ko yor muy suñu papa Maguette mbaw def na fi vingt six ans vingt six ans nag dafa yàgg ci chambre de métier bu Dakar ñu wax ci wàllu euh, njàng mi série scientifique yi nag euh, ci Sénégal euh, tàmbali na tumuranke li ko waral bokk na ci ndongo yi nga xamante ni ñoom dañoo jublootul série scientifique yooyu ba tax na ñu ne boo moyul ci at yi ñu dëgmal nag Sénégal dana ami jafe-jafe ci wàllu médecin ingénieur ci wàllu gëstukat scientifique loolu moo waral tey ay inspecteur d'académie ak ay jàngalekat nag nekkoon ci auditorium bu université Iba Der Thiam bu Thiès ngir xalaat ci lu ni Anta Diop ak Sey ci leeral. ndax élèves yi dañoo ragal série scientifique yi toll nañ ci élèves yi kenn ñemeetul série scientifique loolee di am njàmbat ab xayma boo xamante ne ay inspecteur de l'éducation ay jàngalekat def nañu ko fii ci diwaanu Thiès. orientation yu mujj yi au niveau national euh, constaté nañu ni taux national bi ñu élèves yi ñu orienté ci service scientifique yi mi ngi ci vingt neuf virgule zéro trois pour cent alors que loolu néew na fi ñu toll war nañu vraiment élèves yi scientifique yi ëpp littéraire yi littéraire yi baax na mais quand même liñ ci am moo jéggi dayoo par rapport ak li ñu waroon am ci ay scientifique donc war nañu inverser tendance bi donc 29,303 pour cent mooy niveau taux national bi te 29,03 pour cent yooyu on a constaté que sept académies rek ñoo ko dépassé ça veut dire que sur les 16 académies am na neuf yoo xam ne mënuñu sax atteindre loolu. moo tax nag autorités yi jóg. mënuñoo defar réew. amuñu ay scientifique. nee nañ am réew ay xarala yi ñoo ko yor ak ñi gëstu ci wàllu science waaye nag réew mi ni muy doxee ak ndongo yi ni ñu ragale série scientifique yi bu ñu sàgganul daañu dem ba duñu am ay médecins yu doy wala ay ingénieurs. vraiment faire ba xam ne tendance bi ñu inversé ko parce que bu ñu continuer nii des na tuuti ñaanuñu ko yàlla daañu dem période boo xam ne médecins yu doy dana kii dana jafe pour am ingénieur yu jafe parce que amuñu ay scientifique. lu toll ci ñaari fan ay psychologue conseil ay jàngalekatu ay professeur université ñi ngi ci auditorium bi université Iba Der Thiam bu Thiès di amal nag ay bëccëg yoo xamante ni dañuy jàkkaarloog élèves yi nekk ci collège ak lycée yi waxtaan ak ñoom fexe nag ba ñu ñemee série scientifique yi. Euh, Cheikh Anta Diop ñu lay jaajëfal bu baax a baax lii nag ab sondage la boo xamante ni eh, Médiamétrie moom moo ko def euh, sondage boobu nag aju euh, ci télévision yi ci Sénégal yu ñuy gën di seetaan rajo yu ñuy gën di déglu ñu ne nag télévision bi ci njëkk daal mooy télévision Futur Média sondage bi nag def nañ ko diggante ñetti fan ci weeru octobre jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2021 bu weesoo télévision Futur Média seen Sen TV moom moo ci euh, topp ci wàllu rajo yi tamit yi ñuy gën di déglu euh, mooy rajo Futur Média mu teg ci ba tey euh, Zik FM dina ngeen ko am ci xibaar yi ci nasaraan ñu jàll ci tàggat yaram tàggat yaram wax rek ci football ca bitim réew. jël na ñaari bu am na itamit benn passe boo xamante ne def na ko moom moomu sax ñu gis ni bi saison bi tàmbalee ba tey dafa meloon ni ko xaw a tekk tekkaaral waaye nag mi ngi wane boppam te loolu nag dafay tax rek ñu am yaakaar baax ci moom ak euh, kaan bi ñu euh, dëkkmal dañ ci ànd ak Cheikh bu Diarra. benn moment xawoon na gëj a parce que si équipe am ensuite si sélection bi da nga xamante ni tey jii ku mel ni euh, Famara Diédhiou demoon na ba def ay ay match yu baax tamit. dellu ci xëccoo ak Famara Diédhiou poste avant centre bu Sénégal. ni premier choix Aliou Cissé soo ko dee xool Boulaye Dia la woon parce que même suñ fi nekkoon ñoom ñaar bu Dia moo doon départ. mais après ci diggante bi gis nañ ni a joxe. yi ku mel ni Boulaye Dia avec euh, profil bi mu am war na mun a jouer sax si benn benn côté bi. attaquant bi am ñaar fukki at ak juróom yor na beneen atu mu di mën na jouer ci poste yu bëri. mën na jouer par exemple excentré wala ñu def euh, benn 4-4-2 boo xamante ni assi. ma ngoog ñu koy jaajëfal Cheikh Sadibou Diarra.